li ci yéenikaay yi. yéenikaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kër Massar kii bëgg a doon këru corona moo def kàlla Sénégal bir journal bi li am ci Kër Massar jamono ji journal las bombe sanitaire la ko tudde ne ci diirub ñetti fan juróomi cas coronavirus fay nañu fa te juróomi cas yëpp ci transmission communautaire la jóge maanaam ñi corona xamuñu fan la leen coronavirus bi toppee Kër Massar dib gox boo xam ne la Sénégal nee nañu lu mu gàtt gàtt genn wàllu million ngi doomi aadama ñoo fay yeewoo boole ci kit jaarukaay la ndax ñi dëkk Tivaouane Peulh ñi dëkk ñàgg ñi dëkkee Tëngéej ba Malika kenn dem fa nga dëkk foo jaar jaar Kër Massar ngir moytu lu lawal jàngoro ji ngir moytu balay coronavirus sëppi loxo moo waral bépp marché bépp centre commercial bu nekk Kër Massar préfet bu Pikine jël na dogalu tëj leen ñu tijji journal Les Échos gis ak fa mbas meeg ni muy doxee ci Sénégal coronavirus bi dox na ba yegg Louga journal bi xamal ñu ne benn commerçant bu ñëpp xam ca njàmbur moo fa corona te li ci yéeme moo di xamul fan la jële jàngoro ji ñaareel bi di waa ji mi ngi ñetti jabar ndax wàllu leen kon ndax doom yi jëluñu ci jàngoro ji bi mu amee corona ak léegi ñaata nit la amal contact yooyee yëpp journal bi nee nañu ay mbir la yu ñuy lijjanti l'observateur xëy di lijjanti mbiru ñaareelu nit bi corona bi rey ci réew ubbil yéenekaay bi jigéen la jëppal la dëkkoon ami restaurant la ko doon woowee benn xaritam bu tudd ay chaussée la niyu ci biir l'observateur ami corona bi reyu ko da koo jekkali kay ndax dafa amee woon diabète amee woon it insuffisance rénale bu ñu yéex a xam bi ko ay mbokkam xamee ci la ñu ko évacué woon yóbbu ko France ngir faji ko bi muy ñibbisi ci la àndaale corona bi ay mbokkam seetlu ko signalé ko ñu évacué ko hôpital Fann fa faatoo keroog woo Issa Abré tey ci yéen a kaay muuy la l'observateur les échos l'As soleil national Sud Quotidien La Tribune Vox Populi Le Quotidien ak Grand Place ñoom ñëpp ñu ngi ñuy xamal ne njiit réewu Càdd ba woon di Hissène Habré nekkatul ca kaso ba jugee na ca kaso Cap Manuel ba ñu ko tëjoon Vox Populi ak Le Quotidien bind ne jàngoroy coronavirus bi moo ko génnee kaso moom Hissène Habré Les Échos nañu ca këram nga ca Wakam fa la ko yóbbu confiné ko fa ngir juróom-benn fukki fan maanaam ñaari weer Babacar Ndiaye Fall juge application cinq ñu fekk ministre de la justice maître Malick Sall ci biir l'observateur ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall mu fay leeral li waral ñu jëlee Hissène Habré ci kaso bi yóbbu ko ca këram ngir diirub ñaari weer nee na muy nekkee ca këram dara du ko wutaleeg na mu nekkee woon ca kaso ba ay garde pénitentiaire ñoo koy garde guddeeg bëccëg ministre de la justice dem ci leeral yi bay leeralal ma xali njàkk ndoy bu journal l'observateur ne ñëpp dellu ci suuf soi xooli coronavirus bi fi mu toll ci Sénégal am nañu démb ñeenti cas yees fukki cas wér ak téeméeri cas fanweer ak benn yu ñuy fàcc suuf soi bind ne Louga jot na wàllam ci corona bi ci ki dugg moom nit ña ñoo nga ca jaaxle gu rëy ndax dafa am lu mat ñaari téeméeri nit yu nekkoon ci isolement ci Guinée dañoo dawee ci réewum Guinée ga ñu leen téye woon kenn xamul fu ñu dugg te gis nañu ne kii dugg moo leen gën a jege Vox a jël seen place yaram yi ci réew mi réew mi njiitam di Macky Sall Sud Quotidien bind na ne xool na ba xàmmee tànn borom kër yi mu war a jàppale ci ndimbal ci facture courant yeek facture ndox yi soleil national di ñu leeralal ci yan anam la ñu doxalee ndimbal yooyee ci fukki milliards ak juróom-ñett dina ci am juróomi milliards ak genn wàll yoo xam ne ci facture yi la jëm lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi junniy doomi aadama ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ndimbal yi dina yegg ci ñoom borom këntax waye fal yi dinañu ci bokk bu dee ndox mi ñi bokk ci ñi ñuy tuddee ay kenn ci ñoom du fay dem ci journal enquête fekk fa ñeneen ñu sonn lool ci dogal yi président Macky Sall jël ñoo di borom école privée yi ci réew mi tëj nañu l'école yi parents d'élèves yi ne duñu fay te xamuñu fan la wànnante di mujj ci gëtam te ñoom borom école privée yi li élèves yi daan fay ci la ñu daan dund savon de Marseille Alfé seen gamme Opalia seen gamme Clarissime ak seen marque de référence Sant ñoo leen doon may li ci yéen